waa table ronde bi tey table ronde bu am solo la boo xam ne euh, dafa boole euh, ANSD nga xam ne ANSD moom moo euh, ëmb moom moo jiite lépp li nga xam ne données statistiques la ñu war ko produire ci Sénégal mu ëmb bànqaas yi nga xam ne yëpp dañoo nekk ci domaine boobu nga xam ne dañuy euh, collecte information comme journaliste yi rek ñu ngeen koy ñu koy def noonu la ko statisticien yi defee ñi collecter information bi dañ koy traité diffuser ko bu ñu ko diffuser nag comme ça waaye li mu doon wax ni ñi ñi koy jëfandikoo nag ñoom ñooy xam euh, ci nan lañ koy jëfandikoo et mais ñun dinañ leen encadrer ba wax ni donnée bi lii lay signifier tey nag dañ ci ànd ak ONU Habitat ànd ci ak GIZ ànd ci ak FAO euh, pour que euh, yi nga xam ne àdduna dañoo booloo ci euh, ODD yi ñu am ay indicateurs yoo xam ne dañ ko war a renseigner lu mel ne suuf si ñi ko moom ñan lañu jigéen ñi ñaata lañ si am góor ñi ñaata lañ si am boo demee zone urbaine nan la tëddee boo demee zone rurale nan la tëddee Euh, loolu day permettre euh, non seulement suñu autorité ñu jël yenn décisions yi mais tamit day ñu comparer Sénégal euh, li mu tëddee ak yeneen dëkk yi nu mu nu ñu nu mu tëddee loolu ay politique yu bees lay mën a indi solo waxtaan bi nag mooy ñu def ba nga xam ne ci biir Sénégal fii nga xam ne dëkk bu yam la bu ñuy wax ci affaire foncier bu ma sàmba waxee lii ma dem ba wax lii ñu war a mun a méngoo waaye bu kii waxee lii génn benn euh, chiffre keneen génne beneen chiffre keneen génne beneen chiffre te yooyu yëpp du ànd euh, day xala doy waar parce que kii war a xelam dina jaxasoo parce que kii daf koy wax lii kii wax ko lale moo tax ñu ñu dajaloo tey di waxtaan ci nan moo ñuy wax ci affaire foncier nan lañ koy euh, xayma Euh, euh, buñ ko xayma loolu lan la tekki euh, loolu nag buñ ko amee rek day yombal waxtaan bi mais day yombal surtout ki nga xam ne dafa war a jël décision muy ministre bi muy directeur général bi wala muy président de la république loolu da koy yombal liggéey moo tax ci njëlbeen ñu ne léegi mu am recommandation bu am solo boo xam ne dafa ne ñun ñëpp ñi nga xam ne dañu nekk ci production statistique muy cadastre muy ANSD muy euh, ANAT euh, muy euh, direction de domaines yooyu yëpp danañu lëkkaloo ànd ak experts yi nga xam ne dañuy jàppale muy GIZ muy FAO wala muy ONU Habitat ñu waxandoo benn wax ba nga xam ne dinañu am benn plateforme boo xam ne bu ñu fa defee chiffres yi képp ku ko soxla di nga mën a ñëw tibb si foofu te booy li ñuy tibb euh, benn lay benn lay doon loolu moom mooy solos waxtaan si tey maa ngi leen di remercier